bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu asbaxna wa asbaxa almulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar allahuma inna nasaluka xayra ma fi hatali wa xayra ma baad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 jaajëfal alxaaji suñ mbàkki si lem mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara mbokk yi séminariste yi góor ñay jigéen ñi yi ci nekk ay mag raxnu tabaarakallaahu ten bàyyi leen ko nangu leen ñu ànd kook ñun te tey fekk leen muy seen bisu ñaareel ci kër yi ndax président de la yal na ko yàlla yokk wér moo sàkku ci nun ñëpp nu moytu ndaje yi nun ñëpp nu nangul ko ko rawatina ñun ci suñu séminaire bii nga xam ne ñu ngi nekkoon ci jam ñaajo waaw séminaire si yëpp nag dellu seeni kër waaye sunu technicien bi jokkale leen ak ñoom ñëpp tey nag technicien bi nga xam ne mooy ànd ak nun mooy sunu mbokku Alioune Badara Socé waaw tabaarakallaa bàyyi na wax na cuun mu noppalu alin Badara Socé technicien moom tam moo leen war a lënkaleeg jataay bi maa ngi ci saal bi ci jam ñaajo yéen a ngi ci kër yi waaye xam ngeen ne Alioune Badara moom yàlla may na ko ci wàllu technique <laughs> yoo xam ne tabaarakallaa waaw laf cat li gars yi di wax bi ñu yëkkati jataay bi démb maak yéen nu tolloon ci wàllu culture wàllu culture te ñu bañ koo def ni suñu journaux yeeg télévision yi di def ak rajo yi ci culture ndax nun sunu culture fii mooy waa ji génn nag kaset wala suba la koy génne wala woona barab sàngam loolu tuuti la ci culture mëtul mëtul dix pour cent yi culture gën naa yaatu loolu ndax boo jëloon tey lu mel ni thaqafa arabiya wala thaqafa culture islamique gis li ci sunu mag ñi bind ak ni mu neexe waaw li ci sunu mag ñi bind ak ni mu neexe waaw neex kero ba Lat Joor duggee ci lislaam te bàyyi xaadima jaxate kala bindal ko baytam wa asaadiqun fi diaahi diini la jooru am innama hamuhu fii saaka ka jooru waaw kenn musu koo gis rek neex na asaadiqun fi diaahi la jooru am saaka ka jooru waaw joor kii moom lu jote maa moom waaw ba ko ba ko ba ko ko boroom xam-xamee jàngalee mu ne wëral wëral leen ma ko waaw waaye keroog bañ ba ba mu ko defalaatee weneen bayit wa waxuma ñu wër ko waaye may na ko fas dégg naa da ko bindal bushra <laughs> bushra laqad saada diinallaahi la jooru wa uhiyal fi fil islaami kajooru mu jeex takk culture boobu la ñu am waaye doo ko dégg ci rajo yi doo ko dégg ci tele yi déedéet moom daal bu ñu ne culture rek mooy génne na kaset ba wala mu koy bëgg a génne waaw wala tey barab sàngam lay tëggee fekk nu culture culture mooy li liy ubbi xelum nit ubbi bopp ba balum gis xam lii daa weexam daa ñuul bu tiimee sëpp xam ba xam dañ koo bojjam dañ koo boxam laaj ko imaam Ablaye Ndaw ca ndànd moom xàmmee ne sëpp <laughs> sa buñ boo xam ak la waaw su ko defee gis nga culture boobu dafa war a am lu mu am mooy culture insaniya maanaam lan mooy humanité loolu nit da ci culture luy nit lu fi nit di ku fi indi nit fu jëm lu mu fay fekk la sunu waajur wax xaj Abbas Sall daan wax ku ne war nga laaj sa bopp laaj yooyu man maay kan lan laa fi wut waaw lu ma fi indi bu ma fi jógee fan laa jëm ku ma fay fekki nee na ko am ay tontu ci question yi rek sa dund tàmbalee neex waaw culture boobu nga am ci bu ñu tuddee al ilmiya la science li jëm ci xam-xam waaw xam-xam yooyu ñu ñu xam ko te bañ a defee ne nitug daara war te xam dara nitug lislaam war ta xam dara ah bu nu ko gaa yi manal waaw ndax président mas na ko wax benn bis nee na làkku arab ak làkku tubaab làkku arab ak làkku tubaab du nationalité kenn waaw maanaam def ne médecine du médecine du nationalité arabe du nationalité tubaab ñu ne waaw mu ne docteur yaa ngi jàng médecine ci arab ba man caa faj mooy jamono ñuy tàmbali di dugal euh, euh, li ñu tuddee bac arab waxtaanaat ci te seet ko ala kulli xaal beneen bi nit ki am culture alwaaqiiya al thaqaafa alwaaqiiya mooy lan mooy xam sa bopp boobu nag <laughs> boobu nag li nun ko réere ndax nun fi ne ñi laaj ñi jàng tubaab tubaab yi leen wax réew may ñan ñi jàng arab arab yal na wax réew may ñan waaye noonu ci suñu bopp jànguñ suñu bopp ndax amaguñ suñu école ngeen baal ma ci ton boobu bokk baat bi ma wax amaguñ suñu école école tubaab lañu am école arab ana suñu école bu fekkee ne école tubaab day génn ay francisant école arabe bi di génn ay arabisant wax léegi ñun ana suñu école école yooyu mën na fee nekk ba noppi ñu ñu ñu ñu nationalité nationalisé leen su fekkee nu la ko wax professeur def leen suñuy école di jàng suñu bopp waaye teg école arab di jàng araab yi ñee def école tubaab di jàng tubaab yi boo génnee nekkob arab bu kee génnee nekkob tubaab baax na nan dem ca sunu umra ga sunu waxtaan waak Fadel Gueye ak monsieur le ministre eh, Ahmed Bamba Ndiaye <laughs> yàlla na yàlla yokk leen wér ak gaa yi àndaloon ñoom jim lu am solo la lu am solo la culture alwaaqiya suñu borom daa wax ci alquran falaw laa nafara min kulli firqatin taifa waaye ba muy jeexal mu ne isaa rajaw isaa rajaw suñu borom nee na ku jàngi na nga ñibbisi <laughs> waxul ku jàng na nga ñëw de na nga si la wax waxul isaa aadu isaa rajaw la wax ku jàngi na nga ñibbisi culture arabe baag bu français baag bu allemand baag bu japonais baag bu ci mën di nokk doon nekkal ki nga nekk waaw tabarkal wala doonal ki nga doon doonal ki nga doon ala kulli xaal al thaqafa al waaqiya dafay dimbali nit ki ba mu xam moom mooy moom mooy kan kan mooy sénégalais gis nga sunu politiciens yi ñu ñu ci xam bëriwuñu ma wax la ko tey am na ñetti téeméeri parti soo doon wàññi parti yi xam sénégalais en tant que sénégalais mëtuñu ñett mëtuñu ñett waaw nga xam ne kon un pour cent ngay am peut waaye mutu ñu ñett waaw jàngalekat yi dañoo war a xam sénégalais yi politiciens yi xam sénégalais yi yéen séminaire sii toog seen kër di ma déglu yéen tam ngeen xam sénégalais ab sénégalais day xam sénégalais déglul alquran karim ci suurtu yuusuf qul haadihi sabili adu ila llahi ala basira ana wa man ittabaani waaw adu ila llahi ala basira basira mooy mooy mooy athaqafa alwaaqiya nit ki day am culture ci ci milieu culture de milieu je pense que nu koy waxe <laughs> tey ngeen sonn de tubaab bi wax ne ki koy làkk xamu ko te fu mu toll yoru lay er <coughs> mu ngoog <laughs> waaye nga xam ala kulli xaal maa ngi tënk yooyu jamono ngi ñëw bis bu ñu amee session de ci ci séminaire bi parce que gaañ a ngi koy laaj peut-être yooyu dugg fa mu gën faa yaatu beneen ngi nii bu ñu tuddee athaqaafa ataarixiya nga am culture démb allahu akbar culture démb ah waaw waaw ndax xam sa démb day taxa xam xàmmee sa démb ak sa tey xam sa tey day taxa xam sa démb ak sa tey lu ci gën day taxa xam nooy def kon ba sa ëllëg gën sa démb gën sa tey walla mu dàq ko loolu volante boobu nit di am culture culture démb moo koy may waaw culture démb moo koy may lu ci nekk xamal historique baak yax baak fa mu génne léeg-léeg ay am mbooloo ne ci jàkk di xuloo ko dóorantee kurpañ dañoo xamul cosaan lu ñuy def rek ne buñ ko xamul ñoom ñëpp kenn ku nekk noppalu ne abon ah mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot séminariste waaw mademoiselle et monsieur et madame maa ngi jàll ci sama troisième point <laughs> muy al iadaadu nafsi wala deuxième point al iadaad an nafsi waaw al iadaad an nafsi wax naa al iadaad al fikri muy benn wax naa al iadaad an nafsi ci laa nekk muy deuxième luy an nafsi mooy formation spirituelle waaw yar nit ki ci ruuxam yar nit ki ci bakkanam bakkan bi nga xam ne lépp lu nit am su jagee foofa la dépare su jagadee foofa la dépare te loolu nit mënu koo ñàkk euh, yar bakkan bu amoon lu ñuy teg loxo di ko wax ñu naan mooy départu formation yépp nag mooy départu formation yépp nag waaw bakkan bakkan bi ñuy ñëw àdduna dañu indi bakkan buy tudd al amaara bi suu ñu góor góorlu ñépp dañuy jóge ci bakkan boobu dem ci annafsul lawaama bu ñu góor góorgóorloo jóge ci annafsul lawaama bëgg caa jóge dañ ciy jóge def ci dem ci annafsul mutmainna àgg nan al amaara bi suu al lawaama al mutmainna ku àgg ci mutmainna àgg nga loolu nag formation koy def ci nit professeur formation moo koy def ci nit waaw sama technicien bi na walbati caméra bi mu jox leen tableau bi ma bind ci ñetti bakkan yi un an nafsul amaara bi suu ci big big bu ruus laa ko bindee non ngeen baal ma ci craie bu ruus laa ko bindee a nafsul amaara bisu waaw mu jëlaat craie bi bind beneen bakkan bi ci craie bu orange waaw muy a nafsul lawaama ndeysaan mu joxaat ma craie bi mu bind ko ci bu verte an nafsul na am ngeen ñetti couleur ñetti couleur couleur bu rouge bi bu orange bi ak bu vert bi walla bu vert bi waaw xam naa Baye Omar dégg naa léegi tey sunu télévision bi ñëw xam naa caméra yi ngi tàmbali ñëw incha allah bu ñëwee rek <laughs> ma bindal leen loolu te nag bind bindaleen ko mbind mu rafet ndax mbind mu rafet daa bokk ci jàngalekat ci wàllu pédagogie waaye mbind mu mel ni eh, ay tànki jargoñ doo jàngal ko xam ndax xale yi <laughs> mbind mi la ñuy seetaan dootuñu leen seetaan yàlla nunu yàlla yërëm waaw bu njëkk ma tax boo masaan jàng ba noppi bëgg a jàngale da ngay dem école normale ñu normalisé la nga door a dem jàngale ji loo ko may <laughs> loo ko may mën ngay jàngale te xale yi dañ lay jéppi te te di ñëw di jàngale sawaay ngàbb saag boo xam ne bii la laan demee demee leen nga ko jëndoon saak bi boo ko teg taabul table yi rek xale yu toj kuur ba yàqu na <laughs> wala kuy jàngale di solo la jàpput <laughs> jàngale di solo la jàpput doo wax ak waa kër gi wala sa bàjjen sa bàjjen euh, sa bàjjen seetu ngir balaa xëy day jàkkaarloo bàjjanam seet na ko bàjjan ndax li ma sol jàpp na ma doo xëy <laughs> ngeen baal ma ci misaal moomu waaye wax na dëgg <laughs> ala kulli xaal an nafsul lawaama an nafsul nafsul lawaama an waaw nafsu lu am solo la te itam doy na liggéey nanu dem ci alquran fekk fa nafsoo xalbu nafsoo xalbu sunu borom di wax ci xalbu lu baree baree baree bari nañ jël benn dafa wax ci benn ci wenn saar wu tudd xaaf inna fi dalika la zikra inna fi dalika la zikra liman kaana lahu qalb aw alqa sam wa huwa shahid lii rek doyoon na doyoon na benn séminaire lii rek doyoon na séminaire inna fi dalika la dikra ndeysaan yàlla daa wax ci suuratu xaaf yu am solo di ko wax di ko wax baag si ci aaya 27 mu ne inna fi dalika la dikra li ma jot a wax doy na Hmm? mu ne li ma jot a wax doy na inna fi dalika la dikra li ma jot a wax doy na sëkk waaraate doy na sëkk fàttali waaye ku amul ñetti jumtukaay yi bokkoo li ma wax mu ne mu ne ku amul ci jumtukaay yi benn bokkoo li man kaana lahu qalb looloy la ci jiitu li man kaana lahu qalb lii loolu baatu qalb qalb summiyal qalbu li taqallubihi kon luy qalbu fii mooy koo xam ne kii bi muy ñëw ci séminaire bi mën na fee dégge lu ko jële ci dimension yóbbu ko ci beneen loolu mooy xalb am na koo xam ne kii mën naa dégg waaraate mën naa dégg waaraate walla waxtaan mu noppi ci waxtaan wi waxtaan wi defal ko qalb wa qallabahu ila shay'in axar waaw eh, ndeysaan ku ñu wax ba Jàll mi may dégg gëj nañoo gisee ndeysaan waaye ba Jàll la tudd ma nga fële ci parcelle bi ma tollee ci tafsir bi sunu borom di wax ñi ne ko am nga doom yu jigéen muy wax ci jigéen ba mel ni ku koy xas fekk na déedéet dindi tuuma la sunu borom ne awaman yu nashau fil xilya wa fil xisaami xayru mubin waaw lu tax ngeen bëgg maa bàyyale koo xam ne mbiram yépp takkaay la addunaam yépp takkaay la jay ba jóge fa rek <laughs> jël baatu or ba yët maa ki jooy mëneew waaw moom daal damaa daaneel rek ndeysaan mu jël taxi ñëw jëkkër gi ga ak boitu or ba ndeysaan defe naa amatul or <laughs> ak jooyam ñu ko fa bëcc wëññee ko ñibbi mënta wax ma ne waaw lu xew seetetetet <laughs> waaw maanaam gis nga loolu mooy xalbu nit ñi am na ñoñ ñi ngeeg li na ci biir xol bi tey segg deret ji waaye nag lu tax suñu borom ñëw ba noppi nag daan ni la woo xalbu waa ji am na xol ba nga noppi ba noppi mu naan ku am xol te ku yàlla bind am na xol dafa am ñoo xam ne seen xol peut-être peut-être lim xas enregistré ca lay naan kàkk kenn munu ko wëlbati boo ko bëggee waar a mun la waa waaye waaw te intellect pur intellectuel pur di def loolu déggal sunu borom inna fi dalika li ma jot wax suurtu xaaf mu ne haa mu ne la dikkaraa doy na waaraate mais ku muy kum kum doy waaraate liman kaana lahu qalb li man kaana la woo waaw xam naa bu ko dooru si la déggee naa <laughs> ah, mun na ko dooro summiyal qalbu li taqallubihi koo xam ne waxtaan yi ngay dégg waaraat yi ngay dégg li nga gis ci àdduna dara mun la ca soppi dara mun la ca changé te malaad malade da ngaa feebar séminariste dégg ngeen loolu kon mu am xalbu bu ñaareel ba aw alqasam walla boog mu mu mën a dégg ah waaw aw alqasam wala mu sànni déggam ca loola mu mën koo capter ndax am na ñoo xam ne ñuy dégloo dégg ak dégg xàmmeewuñu leen sam ak fahmu xàmmeewuñu leen te sunu borom am may nit ku kon sam muy dégg muy nopp yi muy jël son nga xàmmee son yi waaw si liggéey di xàmmee na son yu bare bare bari moom Nicolas moom mu nga xam ne tabarkal yàlla xam doy na <laughs> ñaara ngoog ñett ñetteel ba wa shahid te fekk yaa ngi fi te fekk yaa ngi fii wa shahid lahu qalb alqasam wa shahid muy troisième bi te fekk yaa ngi fi ah waaw am na ñoo xam ne nekkuñu fi am na ñoo xam ne nekkuñu fi seytaane sàcc na seenum xel sàcc seen jëmm yóbbu leen bu yàgg léegi nekkuñu fi ku fi nekk xam ngeen ko rek alxayna ala ala kursi jasadan te suñu borom waxoon ca Suleymaan waaw am na loo remplace sa chaise bi mi ngi fi toog te toogoo fi te yaa ngi fi toog mu yéen yaa ngi fi te nekkoo fi imam Moussa Gueye RTS <laughs> yal na ko yàlla yokk wér imam Moussa Gueye nee na nit day faatu ñu tiim ko mu tëdd nii te nekku fi ndeysaan mu ne nit day faatu ñu tiim ko mi ngi tëdd nii te nekku fi wax ju rëy nga mi ngi tëdd nii te fi waaw waaw tey da ngay ànd ak nekk sama technicien bi Aline Badara Socé jàpp ci loxo bi ne ko kii kana mu ne man nga teg sa loxo ci bopp bi ne ko kii kana mu ne man nga teg ci biir bi ne ko kii kana mu ne man nga teg ci tànk yi ne ko kii kanam mu ne man waaw foo teg rek mu ne man léegi moom anamu moom anamu moo tax nekk fi te nekk fi bukkut nekk fi te absenté loolu xam ngeen li may wax ni léeg-léeg nga gis ko toog ci biir mbooloo absenté bu dalee koy bu dalee koy dawal day mbëkk dara bu dalee koy waxtaan day jaxase waxtaan wa nekk fi di nekkoo fi ndeysaan nekk fi di nekkoo fi <laughs> ngeen baal ma léeg-léeg nga gis ku ku ne jëkkër ja santiruma la waaw parce que jëkkër ji nekku fi mu ngi fi nag mais il absent su fekkee nu lañ koy waxee yàlla nu yàlla yërëm mbokk yi jënn laayaa ngoog ci liy defar xol maa ngi ci kon formation boo xam ne mooy defar xol an nafsiya al i'daad nafsi beneen bi sunu boroom waxati ci alquran jëme ko ci xol ca shuara saar wi ñu tuddee taaxuraankat yi taaxuraankat yi woykat yi waaw rappeurs yi nangam nangam mbalax maan yi reggae maan yi ñëpp sunu borom boo leen aw saar ay shuara mun na leen <laughs> mu wax ak ñoo ñëpp nag mbokk yi yowma laa yanfau maalun wala banuun illa man atallah bi qalbin salim rikk waay rikk waay taaxuraankat yi ak ñi aju ci ñoom ñépp na ngeen xam ne bis ngi ñëw alal du jariñ hmm, déedéet alal du jariñ ay doom du jariñ dara du fa jariñ illaa lu dut man atallaha ku dikk ca yàlla bi xalbin salim ci xol bu wér salim xol bu wér xol boo xam ne kañaan nekku ca soxor nekku ca rëy nekku ca bon nekku ca siis nekku ca ilaa axiri ilaa axiri séminariste yi mag li di jaajëfal yaa ngeen jëfit bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bés 2 nu ànd ci suñu jotaay boobu nga xam ne day am lundi di am mardi di tàmbali 8 heures di jeex 10 heures noo ngi yaakaar ne incha allah ci la ci la bër gi tàmbalee waaw bër gi ci lay tàmbalee nopp lu tuuti jamono yi mu ngi daan fekk ca Italie eh, tabarkalla Espagne Allemagne Portugal ren nag corona moo na ñu toog leen ba déwén <laughs> moo tax nu bëgg a toog ba déwén waaw merci corona waaye nag li ngay def sérieux wut sunu mbokk yi xëy ci xibaar ak ni taxaw yor seen i kayit bëgg leen a firiñ fànjal xibaar tuwaay firiñ fànjal ko ci wolof ñaan yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii ak suñu sponsor bii yàlla yàlla defar seen mbir defar suñuy mbir ci def ci sunuy poos dara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu